Bale ñu gem, bale ñu gem, ñu non puedo con vivo, tío. Te lo juro por tu madre, te voy a comer vivo. Shut up. Yo, tú no me puedes sacar, rollo, me puedes quedar. Oye, háblale lo que estoy diciendo, que tú no me estás Eh, waxle, waxle li fi xew. Bale. Amal yar boy. Waxle wolof. man la booy bu dee da ngay roon nga wax ma booy. waxuma yàlla. yàlla yow gëmoo yàlla. waxuma yàlla gannaaw naa yow gëmoon yàlla doo bëre booy. waxuma yàlla parce que ñi gën a ñi gën a gëm yàlla ñu ngi làmb di wax. dama lay laal 547. nga wax te bul ma laal dama ni la nga wax te bul ma laal.

tooñ fii bul tooñ maa tooñ yaa jox ko ñoom ñu samay doom lañ mais fii bul tooñ yow laay wax ni waxoon naa ko léegi na ko waroon a ñëw léegi nag bu jógatee yow bu bu jóg jaxasoo ko ak ñoom toogal fi nga toog maa ko gën a jóg waay yow yaa gën a tuut si ñu may jaay. dama bëgg mooy DK TV people. man ñaaxarañ loo aka Faramareen musique maa ngi seetaan DK TV. voilà man la Mame Fatou Ndoye maa ngi seetaan DK TV. Maabo. Maabo jaajëf waay DK TV. kon man El Hadj Bekay maa ngi seetaan DK TV. man Malick Thiandoum maa ngi seetaan DK TV. oui euh, man Moustapha Guèye maa ngi seetaan DK TV. man Viviane maa ngi seetaan DK TV. yes sir yes sir Wally Ballago Seck mi ngi connecté wu ci DK TV. pro waaw man El Hadj Abou Bilal Koutia damay seetaan DK TV. pour yu am solo. ngaa ko maa ngi seetaan DK TV. di dundu gis DK TV. Malom so daal maa ngi seetaan DK TV. la ma liggéey la mi ngi DK TV iway eh dina ko seetaan waayi voilà. yal na ngeen nekk li neexul. DK TV.